salaamaaleykum bokki jullit yépp fu ñu mën a ne ci biir réew mi ak bitim réew noo ngi leen di yëgal wàcc liggéeyu sëriñ Mamor Mbacke moom sëñ Fallou doonoon jëwriñ ji sëriñ bi denkoon lépp lu jëm ci daara yi alxuraan yi tam liggéeyal ci sëriñ Touba liggéeyal bu rëy a rëy sëriñ Mountakha seere ko gërëm ko moom ci boppam mu yor ay daara daa jàngaleel boppam wutit ñu koy jàngaleel boole ca sonn lool ci alxuraan. bëgg lool alxuraan doon tali taaliba Serigne Touba bu dëggu ci moom bu ko bëgg bu ñëpp seere loolu ci moom ko nag waa daara bu kenn des fu waay mën a ne na ko wàcceel alxuraan taaliba bu nekkit foo mën a ne loo mën ci xasida yi Serigne Touba yi na nga ko ko mbokkum jullit mu ne foo mën a ne na nga ko fàttaliku ci ñaan ñeent fukki ixlaas yu sell yu ànd ak bismillahi rahmaani ak loo man ci ñaan rek nga defal ko ko suba ci onze heures lañ koy jëbal borom